للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني kon mbokk yi ni ngeen ko xamee rek ñu ngi fii ci daaru Tansil ci siyaar bu am solo bi nga xam ne kuréelu xasida yu diaspora bi ñu ngi fii ñëw teew fi ngir siyaare si Mouhamadul Mountakha ci ndigal li nga xam ne moom la leen jox ci ànd ko ñoom saa su ne ñi ngi toog ak ki nga xam ne moo di Serigne Mahmadan Mbacke moom Cheikh Mouhamadul basiiru Mbacke xalifa maam Thierno Birahim borom daaru moxti ñu ko ñaanal suñu borom suñu ci barkem di ñaanal bax euh, wajuram cheikh mahamadul basir suñu borom katanal ko ci koba ko ba yan bi nga xamne mom mom mom mom la yanu ngir liggéeyal euh, maam ceerno ibrahim ak mboolem yi nga xamne ñoo ci kër ga suñu borom defal leen ci tawfiq ju yaatu cheikh mahamadan mi ñu teewal togal nak kenn la ci mbolo mi nga xamne suñu borom def nañu and ak euh, mboolem jëwrin ni ci taxawal yi nga xamne ne bisu xasida bi rawatina ci jamono yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Muxtaar yàlla suñ borom doole ay leeram mu ngi doon joxe ndigal li ngir ñu gën koo fonk ca doxi ci ak Pastef mu liggéey ci liggéey bu am solo boo xam ne ni àndoon na ko ak moom li ci séq ak moom jotaay yu bëree yi ngir yaatal li nga xam ne moo di liggéey bi ba suñu borom def jamono yi mu féete fi nga xam ne moo di Daaru Muxti waaye gis nañ ne saa su ne mi ngi ànd ak mbooloo mi li nga xam ne moo di liggéey bi kon ni ñuy def mooy teewlu ay kàddu moom itam ginnaaw bi nga xamee ne ànd naag ñun ci jotaayu tey bii ngir eh, ñëw jébbal li nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha liggéey bi siyaare ko bu baax itam sàkkuwaat ci moom li nga xam ne moo di ngërëm sàkkuwaat ci li moom li nga xam ne moo di ndigal kon ni ñuy def mooy jébbal kàddu gi eh, Cheikh Mouhamadan Mbacke bisimilah sëñ Mouhamadan aousu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ربي israh لي sadri wa لي امري واحلل wahlul من min lisani قولي السلام assalamu alaykum wa تعالى ta'ala wa barakatuh julit yi talibé yi ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di am mbekté bu baaxit ci teewaat ci béréb bu tell bi béréb bu sell bi ci béréb fi ki nga xamantene moy serigne mohammedul muntaha yal na ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko ñu ànd ak bokki taalibe yi ñëwaat fii <coughs> ngir joxaat ko li nga xam ne moom la moom te mooy liggéey bi ndax moom rek mooy kilifa gi moom rek moo moom jataay bi kon moom rek lañ ko war a jébbal ci njiitul sëriñ Sam mi nga xamante ne ànd na ak daayira kuréel yëpp ñëw ñu fas yéene ko jébbal liggéey bi nga xamante ne moom liggéey bi damay wax ne moom ñi ko sos ci la bokk. ndax yaakaar naa kuréel bi muy nekk ci yoon wi ci sëriñ si njëkk a xam lan mooy kuréel ci sëriñ si ko njëkk a ci la bokk ba tax mu bokk ci tàmbalee ko ci isbu taraxyee ba fii nu toll nii ak ci yeneen kuréel yi ci des yépp euh, kuréel gi nag euh, di kuréel goo xamante ne gu am solo la ndax dajale ay nit dajale ay xale dajale ay mag di toog di jàng xasiida xasiida yi nga xam ne Serigne Touba defu ci lu dul tagg yonente bi defu ci lu dul jéggulu deful ci lu dul lu nga xamante ne julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama képp koo xamante ne da nga ko def ni ko sëriñ bi daan defee kooku njukkal war na la kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci teewaay gi nga xamante ne teew ngeen ko fii nu àndandoo ko yéen fas ko yéene ko jébbal sëriñ bi ñun nag liñ ci daan wax daanaka wax yooyu lu mu bari bari duñ weesu di ko baamtu bi nga xamante ne yàlla dogal na it nu nekk ci diaspora bi nekk ci bitim réew àndandoo kook yéen dafa am luñ ca waxoon loo xamante ne loola mooy lanu ca bàyyi ba léegi euh, lanu ca bàyyi ba léegi mooy gëm ne njabootu Serigne Touba gépp nun ci sunu suuf la nekk ñu àndandook ak ñoom njabootu sëriñ Touba nag bu ñu nekkee ci loo xamante ne moom la sëriñ bi bëgg war na kenn ku ci nekk ci ñun mu taxaw jàppale la war na kenn ku ci nekk ci ñun mu taxaw saytu la war na taxaw kenn ku ci nekk ci ñun mu àndandoo ak yéen ci nañuy liggéeye ak nañuy doxale ndax wax naa ko lu dul benn yoon du ñaari yoon ndax nun bi ñuy dem ci àll bi ak bi ñuy nekk fii ci réew mi yëpp sàmm lanu nu suñ borom digal. boole nu ak njabot go xamantene dañ leena wara sam yonent bi sallallahu taala alayhi wasallam digal ñuko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yawmal xiyaam kenn ku nek ab sam nga ci njabotam te bu yawmal xiyaamee danañ la laaj ñoo samé won say njabot kon bu nu gisé ne njabotu Serigne Touba lan nekkal ci béréb war nañ di leen saytu war nañ di xam lu ñu nekké jant bu nu nekké ci ak jup ñu and ci ak ñom jant bu ñu nekké ci luddul loolu ñu wañi leen ci tag leen ci ak jup ñun loolu la ñu sëriñ bi boole woon ak yoon loolu it moo taxoon ñu am pas-pasu fës ko yéene woon a ànd ak yéen ba ne ànd yéen ba léegi loola lañ ciy gis mooy tege ci yoon tege ci ak jub di jubbanti xale yi di leen teg ci ak jub ndax wax naa ko ci réew mañ nekk ne euh, jataay boo xamante ne jant boo ko tàmbalee toog mucc nga ci jataay yu bari jant boo tàmbalee sol mbubbum kuréel di toog ci kuréel am na ci lu bari loo xam ne am nañ yaakaar ci ne mucc nga ci loo xam ne duutuñu ca gis mukk gone gu koy def gépp gone gu bokk ci kuréel gisatuñ ko muy nekk ci mbedd mi wala muy àndandoog tubaab yi wala muy dugg ci lu yoonam nekkul wala muy tux wala muy naan sàngara wala muy dem ci béréb yi ñuy fooye yooyu yëpp gis nañ ne ab seetlu la buñ gisoon boo xamante ne gis nañ ne ku xas ba dugg ci kuréel mucc nga ci yooyee léegi ci loolu nag ñun ci lañ ne ndax xale boo xamante ne mi ngi nekk ci lu mel nii nga xamante ne loola lu koy musal la ndax jaaduwul ñu jàppale ko ndax bu nekkoon ci leneen nit dañuy dem jëli ko ginnaaw nag mi ngi ci loo xamante ne lu sëñ Tuubaa gërëm la kon dama yaakaar na yeneen bang bang yi ci des gis na ko ko mën a muñal jubbanti ko ko xamal ko ba xamal ko ne ko sëriñ bi lii la bëggoon ak lii la bañoon ñun ban nekkee ci réew mi gis-gis boobu la naam gis-gis boobu tax ñu àndoon ci ak yéen ci jamonoy sëriñ Sidil Muxtaar ànd ci ànd bu rafet boo xamante ne ànd nañ ca moom di duñ ko fàtte mukk it euh, lu mel nii buñ jant buñ ci dajee sunu xel dana dem ci Serigne Cheikh Bara Mbacké mi nga xamante ne doom la ci Serigne Sidil Muxtaar moom it mu amoon ci taxawaay bu rafet boo xam ne àndandoo woon nañ ci liggéey bi di ci taxaw taxawaay boo xamante ne taxawaay bu rafet la kon loolu daf ñuy soññiwaat euh, bu nu demee nag ba agsi ci foo xamante ne tey jii nii mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha nga xam ne moom li may wax damay wax ne royukaay la ci ñëpp ndam la ci diine ndam la ci lislaam jëpp maanaam kenn ku ci nekk daf ko war a damoo nekkul ne murid yi rek ñoo ko moom waaye lislaam jëpp a ko moom tey boo seetloo màggal gi jàll discours yi ñu doon def wax yi ñu doon wax yëpp kenn ku ci nekk même ñi nga xamante ne duñ ay jullit dañoo teg Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci seen kanam wane ni kii ab boo xamante ne dañ ko war a damoo jàppe wuñ ko sax euh, xalifa Sëriñ Touba wala ñu jàppe ko satub Sëriñ Touba waaye dañoo jàppe ne kii ab sénégalais boo xamante ne sénégalais 100 pour cent la boo xamante ne ñëpp ab boo xam ne dañ ko war a jël jëriñu ko ndax kenn ku nekk sa njariñ ndax bu dee ci wàllug diine kenn ku ci nekk gis ni mu ci taxawee ci jamono yi nga xamante ne adduna bi yëpp a ci ay xat-xat kenn ku ci nekk jaaxle dem nañ ba aj màkk sax amatul dem nañ ba bépp béréb boo xam ne buñ daan taxaw di jaamu yàlla bërëb boobu béréb yooyu daanaka fay na def defatuñ ci dara nga xam ne dafay mel ni tubaab yi liñ bëggoon lépp bu fekkonte ne amuñu 100 pour cent am nañ 80 pour cent 20 pour cent yi ci manque yëpp mooy njabootu seexul xadim moo leen të moo tax amuñu ko njabootu seexul xadim googu goo leen tëy nag see seex Mamadul Muntaxa nekk seen kanaw tax mu sàmm leen ba nga xamante ne fii ci tuubaa ak bépp béréb boo xamante ne sëñ Touba ko sanclu te njabootu sëñ Touba nekk fa mësuñoo manqué mukk waxtu woo xam ne nit ñi danañ dem ci jàkk ji julli ci moo xam ajjuma la moo xam julli farata la moo xam julli gu man di doon bépp bis yo xamantene da nañ ko defarit amu ci benn bis bo xamne buñ bayyi la yépp dañ ko andalo di ko def muy bis yiñ doon jaamu yalla nga xamne kon tay boko ko doon nat ci aduna da ngay wax ne diine fi rek la wane na ko ndax bi nga xamantene ne dem nañ ba jaaxle gi am lam njëkk wax moy euh, mbir bu démé ba jaaxal ñëpp la ci jaadu moy nu wat ci suñu borom mu jël nit ñëpp delloo leen ci suñu borom woote bis bo xamne ne bis bi ngeen di yëngutu tay nga xamne bis bu set ci ngeen daan guddé ak bëcëk muy woni ni dajalé leen touba ñëpp tok yendo jang xasida yendoo jàng alquran yendoo ñaan suñu borom te yaakaar naa bañ ko defee ba léegi kenn ku ci nekk gis nga ci lu yéeme loo xamante ne ku ne yàq mën a wax sa bopp jërul sax jullit bi wala taalibe bi di ko waxal boppam waaye ku ne yàq yow mën a waxal sa bopp kon muy jëmm joo xamante ne teg nañu ci aw yoon yoon woowu muñ ci teg nag nga xam ne njaboot gi nga xamante ne ñoom lañ nekk ndooloon ci diaspora bi yëpp di Italie di Espagne di Amérique ak fu mu mën ci loolu lañ ma sa nekk yooyu rek lañ ci gis foofu rek la njaboot gi teg seen tànk mësuñu koo teggi mukk mooy dundal sunna te mooy dundal lislaam te mooy wéetal suñu borom te mooy jaamu suñu borom te mooy nekkal Serigne Touba ci li Serigne Touba bëgg ndax fi ñu damay wax ne ci jamono ji ñu toll nii euh, ku ko gëm ak ku ko gëmul maanaam ci année yi ñu toll nii tàmbalee ko ci 2021 ba 2022 bi ñuy dugg incha allah kenn ku ci nekk xam nga ne sëñ Tuubaa képp moo ramu nit ñëpp fi ñu toll nii moom képp moo ci génne nit ñi ku ne xam nga ko maanaam adduna bépp boo demee ci réewi naar yi foo demee ci réewi tubaab yi foo mën di dem da ngay xam ne fi ñu toll sëñ Tuubaa képp mooy solution loolu moom ku ne xam na ko te lu ñu war a teg ci kanam nit ne nit ñi jàggal ko ndax fi ñu beneen solution amul ci yoon ndax lenn lu nekk essayé nañ ko waaye bu ñu demee ba ci biir gis nañ rëq-rëq yi ci nekk yoo xam ne kenn mënu koo jubbanti gis nañ ne fi ñu toll yoon wii di yoonu sëñ Tuubaa moom rek mooy solution ci àdduna te adduna bépp buñ ci tënku woon fi ñu toll adduna bépp nekk ci jàmm kenn dutu sonn ndax gis nañ li jàll niñ ko téye waaye gis nañ li jëm ci kanam it niñ ko téye gis nañ dëkkam bu sell bi nga xam ne fi lañ ñëwit gis nañ dëkk bi niñ ko téye dëkk boo xamante ne daanaka du état du kenn ku ciy participer du dara murid yi taalibe Sëñ Tuubaa yi ñoo ko téyel seen bopp ba mu agsi fii mu agsi ci dëkk boo xam ne amagul téeméeri at ak juróom fukk kenn ku ci nekk xam na ne solution boobu su fekkante ne ñëpp jël nañ ko dama yaakaar ne solution boobu mooy lii mooy lii ramu ñëpp ni ko xamante ne yàlla yërëm te xaare ko àjjana président Rafsanjani président Amérique la woon dafay ñëwoon fii ci Serigne Saliou Mbacke bi mu fi ñëwee daf koo wax ne ko bi mu waxtaanee moom ba pare daf ko wax ne ko man dama yéemu ndax ku am njaboot goo xamante ne boo toogoon tey ne leen ñaari milliards laa bëgg balaa mat fukki fan ñu tegal la ñaari milliards yooyu léegi loolu lu tax ab état wala lu tax adduna di ko sàggane ba utiliser ko ne ko kooku bi dem na bu yàgg ndax ñu ko xamante ne ñoom lañ doon roy sax ñoom gis nañ ne sëñ Touba ci boppam solution waaye gis nañ ne Touba ci boppam mooy solution kon damay wax ne euh, te te te solution boobu feeñ na ci lu bëree bëri ndax fii nu toll tey kenn ku ci nekk gis na ne li daan am répété waat répété waat na ay yoon yoon gis nañ ne Touba jant bu ñuy construire Touba jant bu Touba di defaru toujours ci crise lay defaroo bi bi sëñ Modou Moussa di door a ñëw sëñ bi jóge fi crise bu métti am ci la sëñ Modou Moussa taxawal jumaa ji ci la def ci la teg raay bi ci la taxawal dëkk bi bi mu fi jógee it 1960 bi bi sëñ Saliou bi sëñ Fallou Mbacke ñëwee moom itam beneen crise ñëwaat sëriñ Fallou ci la àggale jumaa ji ci la def yëpp waaye yooyu yëpp gis nañ ne eh, sëñ Mouhamadou Mountakha crise bi mu dajal gis nañ ko crise bi nga xamante ne moom la dajal nga xam ne tey crise bu mësta am la ndax dafa daj àdduna bépp li ñuy wax coronavirus dafa daj àdduna feebar bu daj àdduna bépp mi ngi door am ci feebar bu mel nii waaye sëriñ bi ci la construire boo xam ne 37 milliards lay jar te yàqalu ko dara ci ay liggéeyam ci Touba yàqalu ko dara ci ay kërëm ci Touba yàqalu ko dara ci ay njabotam yàqalu ko leen luñ daan massa taxawal Touba lepp nga dox université ba nga dox université bo wax barki dem amna ci benn borom xam-xam bu ci wax université buñ defar ci ñaari at ñu ngi koy door dégg ñu doon defar sax ci dakar fi tollu amna fukki at ak nangam te dara taxawu ci te bi ci ñaari at fi ñu taxawal nañ ko ba tambali ci jangale kon mu melni nit ñi euh, li nga xamantene mom lañ wara tek ci seen kanam deug deug moy jël seigne Touba def ko muy solution buñ ko defee rek réew mi dem kon dal ci gatt xamna lool rek lañ ci doon wax di sañ di soñi kureel yi bu di wax ne le sen taxaway Euh, lu taxaw ba am fukki at ak nangam loolu kenn ku ci nekk xam na ni ci dëggu rek la lalu kon la ngeen nekkoon bu leen ci kenn jëlee na ngeen ci continuer te taxaw ci te dëgër ca te àndandoo ngir jëmmi yàlla te àndandoo ngir jëmmi sañ Touba ji fës ki taxawal sañ tubaa fu ne ndax diaspora ba ngeen nekk taxawal ngeen fa yoon wi taxawal goo xamante ne euh, xale yu ci bari yaakaar naa fi tollu mucc nañ ci lu bari loolu nag ku ko am danga ko war a sàmm te ko bu baax a baax kon kon ñu ngi ciy soññi kon ñu ngi ciy soññi ñëpp euh, ñu taxaw ci liggéey bi bu baax a baax ah, ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee woon tamit mooy fës ko yéene ba liggéey bi ni ma koy waxee toujours keroog bi nga xamante ne ñu ngi ci def benn conférence ci Daara Kamil dama leen ko wax dama ne leen wax ne leen daara ji ñëpp dañ cee war a taxaw. ndax li tax ñu war cee taxaw mooy nun ci suñu wàllu bopp fexe nañ ba mucc waaye doom yi ñu jur muccagul doom yi tuub muccagul te faaw ñu wutal leen ay béréb yoo xam ne ay béréb yi muccukaay lay doon kon loolu rek li ci jaadu mooy ñu soññ ci mbokki taalu bi yëpp ne leen nañ ci taxaw ba daara jooju taxaw taxaw gu wér ndax yow mi nga xamante ne Italie nga nekk di fa dund xam nga xale bi li muy dundee xam nga xale bi lan la bëgg ak lan lañ ko mën a téye ba li liñ ko bëgg a def ci moom ñu def ko ci eh, su ko defee ñooñu nag bu ñu sosee daara fii danañ ko mën a def saytu ko saytu goo xamante ne xale ba ñuy jëlee bitim bu ñëwee dana fu mën a toog jàng kon loolu damay wax warteef la ci lim ndax ñun ñëpp tey jamono yi ñu fi nekk maa ngi leen koy wax ma leen am nañ ay jafe-jafe ndax suñ doom yi mënuñu leen a indi kenn ku ci nekk yaa ngi téye sa doom foofa ndax gis nga ne nek gi muy nekk fii ku juddoo ku juddoo Italie wala mu juddoo France aw nekkinam Sénégal yombut parce que lam tàmm foofa ak la mu juddoo su fekkente ne da nga koo directement Sénégal yar ci ni ñuy yare fii rek mën nga koo gaañ wala mën nga koo ay jafe-jafe lay doon waaye nag suñ taxawee ci daara ji fexe ba nam doon dundee ci réew ma bu dikkee noonu lay dundee fii léegi ñu di tarbi di yar bu ci lay kon ñi ngi ci soññi ñëpp ñu taxaw ci dara joju fexé ba daara alquran ji taxaw taxaw gu wér nga xamné goné gone yañ fa am jant buñu amé kay dinañ leen mëna andi fi ñu jàng ba nopi suñu jangé fofu ñu dellu ndax déssé nañ lu bari bari ndax may wax né fek ci Italie ñu dem ba Rome wala ñu dem ba Milan wala ñu dem ba Livorno wala fu mën di doon wala Paris wala Angleterre wala Lisbon, wala fu mën di doon ñu dem ba ag ci né doomi italien bi ci boppam moy taxaw ci jàkka ji di khutba ci sëñ touba àggaguñ fañ jëm té lolu rek moy ñu ci mëna a ndax damay wax né bo jëlé am sëñ Ndiaye teg ko ci jumaa ji xëy na góorgóorlu na ba xam langue italien bi waaye lam ci war a xam lépp xamu ko mën naa am baat bi mu waxe ko ni baat bi mu waxe mais bu ñu demoon ba doomi réew ma ci boppam mooy taxaw di wax ci sëñ Touba wala taxaw di xutba ci jumaa yi léegi dama yaakaar ne objectif boobu loolu lañ war a jël te a teg ci suñ kanam te mooy li xamante ne daara yi fii rek moo ñu koy may ndax xale ba tuub foofa mën nañ koo indi fi formé ko fi sénégalais ba nga xam ne fa la juddoo it mën nañ koo formé fii nga xam ne su delluwaatee ñoom ñooy jiite jàkka yi ñooy jiite jumaa yi ñooy taxaw di wax xasida yi ñooy taxaw di wax di leeral lenn lu nekk kon nak na ci ñepp taxaw def ci seen pas-pas ba nga xamantene ne daara ji dana taxaw ñu man fe yar gone yi ba nun ni nga xamantene yaré yare suñu bay yaron nañ ko ci daara ji dom yeñ am fofu ñu man leena tek fe ñu mucc kon dal ci lool rek ci gattal xamna lool lañ doon wax di sante mbokki taalu bi yëpp ci turu Serigne Sam ci turu mbollem njabot gi nga xamantene ñom la andandol wah di leen wax ne leen nak nun andando bin andando ak yeen Sëñ Tuubaa rek ko lal teguñu ci lenn ci suñu karam limay wax dal moy kep ko xamantene bepp kurel bo xamantene jog nga ngir défendre seigne Touba ngir défendre li seigne Touba bind ngir défendre yoonu seigne Touba wi ko nan faski yene and ak yow te luñ ci am luñ ci gañe rek dañ ko ci jëlé niko seigne sëñ Cheikh seigne sëriñ Mouhamadul muntaha waxé won ci discoursam bi jall né luñ ci góobe rek dis na ko gar ñun fofu lañ tek sunu bakkan moy njabootu seigne Touba gi mucc eh, nan ko daan waxé lool lañ ko ci waxe bëgguñu ci xamé kenn manam xamé ci kenn wala kenn nekk ci sunu taalu bi intéressé wuñu li ñu intéressé dal moy njabootu seigne Touba gi nañ mucc lool rek moy sunu itté te ci loolu lañ taxaw te loolu moom duñ ci jóge bu mukk fu nu déggee na ña koy defee wala fu nu déggee na ña fay danañ fa dem danañ fa taxaw ngir taxaw ba njaboot sëñ Tuubaa gi mucc di ñaanal Cheikh mun Mountakha yàlla yàggal ko fi lool di ñaanal sunu jur wi nga xamante ne it eh, eh, moom yàlla dogal na jamono yi moo nekk ci njabootu bopp Cheikh Ibrahima Fati gépp moom itam yàlla guddal aw fanam ndax lii nuy def lépp moo nu ci yar moonu ci xiirtal ban man ko kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm njaboot gi yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد